ah. damay d'abord applaudir les deux mains sama sœur le fait que mu ne le président Macky Sall a raison sur euh, par rapport au parrainage. Mm aujourd'hui vous pouvez le dire parce que nous sommes à trois cents candidats mais de point de vue bu ñu jàngatee man jàngat bi ma ci am mooy dañu nawloowul Sénégalais yi les politiques. te boo xoolee et je peux commencer par elle-même ku am déboire politique je suis ministre on me dégomme je crée mon parti ou mouvement je suis plus député investir ñu naa créé sama mouvement te boo doon xool trois cent candidats yëpp même ñi ngay defal maanaam tey bu investiture bu doon def investiture am may def sama investiture c'est les mêmes personnes que tu vois. Ouais. c'est ça la réalité. effectivement. donc réew mi toll na foo xam ne man dama ne et wax naa leen ko y a une responsabilité de la presse et ça je le partout. comment oui cette responsabilité c'est quoi c'est que da ngay gis nit muy sàkku sax yow pour nga inviter ko pour mu jéem a wane boppam. te la muy wane boppam bu moom ci boppam xam na ne gëmul sax ne moom war na mën a taxaw pour laaj sax réew mi ma sœur l'a dit tout suite soo demee ba yow bureau de vote bi ngay voté mënoo fexe sax xam nga mën nga gagné bureau de vote sax te doo nekk élu mais tey boo xoolee les trois cent candidats yi ngay xool buñ jëloon échéance yi ñu mujjee kan moo ci gagné bureau de vote ba war a mën a taxaw na man am naa électorat bu ma yaakaar na war nañ ma mën a yóbbu pour ma jiite réew mi ça n'existe pas moo tax gis nga euh, honorable le président Macky Sall aura toujours raison ci nit ñi lu tax muy am toujours raison ci nit ñi parce que gis nga politique def dul mbiru caaxaan jiite réew du caaxaan kon boo demee ba war a xalaat war nga xoolaat d'abord sa bopp xool lan mooy réew mi c'est des gens inconnus qui ne connaissent même pas le pays xamuñu sax Sénégal mais parrainage trois cent candidats te yow man nii di wax wóor na ma ne ci trois cent yooyu boo doon xool li ci ëpp lépp mënuñu sax maîtriser seen kër est-ce que réellement loolu rafet na ci démocratie y a démocratie ah parce que. mais autorité